salaamaaleykum sama xarit dalal ak jàmm li ngay dégg ci nag ay baat yu am solo lañu ay leeral lañu ci diggante borom bi ak jaam yi soxlawul ngay am téere nataal bi wante soo ko amee it ndimbal la ngir nga mën di fàttaleku li bataaxal bi di wax saa yu la soobee na taxawal wax ji ngir xalaat ci li nga jot a dégg déglu lu njëkk bataaxal bi ba mu jeex te bañ koo dog soo noppee nga tàmbaliwaat léeg nga taxawal wax ji xelaat bu baax li nga dégg jàngat wax ji soo déggee woy wi na nga wëlbati kayit wi nga tàmbali nag ci kayit wu njëkk wi